lacune ci parenage bi parenage bi euh, vraiment des na war nañu ko gën a organiser ci texte su code électoral bi foofu la am foofu la am lacune euh, ba tax na euh, ñiy dem di parrainer dañ leen di souvent dañ leen di bloquer parce que dañu naan dañu def ay attroupement wala dañu naan dañu dañu organiser manifestation non autorisée xam nga yooyu waroon nañ ko mën a prévoir ci euh, ci ci texte bi ci euh, code électoral bi ba ñi nga xam ne ñi ngi dem parenage mën a dem parenage ak xel bu dal loolu nag euh, autorité politique yi mënoon nañ leen ko yombalal tamit yombalal leen ko waxtaan ak takk der yi pour wax leen ne ñu teggi seen tànk tuuti.